ci remerciement la ñuy njëkkee monsieur le président Macky Sall son excellence ñu ngi koy remercier bu baax ci opportunité bi nga xam ne may na ko tayeeru Sénégal muy projet de trente milliards ñu dem ci première phase bi muy dix milliards ndax ku ne xam na ni tailleur événement la daan am su ñëwee tabaski bu pare wala korité ku ko abbu trente mille sax du la ko abal ku nekk sa bopp ngay tal waaye sant yàlla bi marché bi ñëwee à son kon loolu dañ koy encouragé di wax ci tuuru tailleur yi yëpp di wax ni projet bi projet bu ñëw ci heure am la projet bu ñu soxla woon la président ñëw na sànq ci manquement yi duñ ci sori parce que mënuñu toog di ko étaler waaye en tant que ay responsable am ay interlocuteur lépp loo xam ne jafe-jafe la ci li ñu ñaw ci li ñu jànkonteel tënk nañu ko xaatim ko def ko ci bataaxal dinañ ko jox ñi nga xam ne ñoom lañ ko war a jox ñu toogeek ñoom ñu faral fàcce leen ko benn ak benn ci jafe-jafe yi ba bu ëllëgee incha allah ci deuxième année bi ñu mañ a jaar ci rëq-rëq yooyu loolu également dinañ ci ñëw beneen bi alerte la alerte bi ñu ngi koy jëmee ci selon ñuy wax de des syndicats d'enseignants wala autres dégg nañu ñu nekk di wax ci média yi naan du priorité waruñu koo jox artisan yi wala waruñu koo jox tailleur yi aha kay ñaata yoon lañ leen yokkal seeni salaire te waxuñu ko at mu jot suñuy doom ñu fi toog ñun y compris man ak ñeneen ñuy fay ñi nekk ci privé bi même ñu nekk ci public bi dañuy participer ci école yi ñu leen di fay di leen yokkal chaque année seen salaire ñoom waxatuñ ko ñu wàññeeku naan dix milliards yi nga xam ne jox nañ ko tailleur yi dafa bareek waruñu leen koon jox ñu xamal leen ni ñoom ñooñu ñoom ñoo nekkoon des sous-traiteurs ñoo daan jël marché bi di fay tailleur yi ay cent cinquante koo ci dégg marché bi am na ñu bari ñoo xam ne ñu ñëwuñu ci xam nga lu tax ñëwuñu ci dañ ne dañoo jàppoon ni blouse fanweer blouse deux cent la moo tax ñu ne du ñu ñaw parce que moo fi daan am nag dañ koy sous-traité ñi ko daan jël ñëpp ak 90 pour cent kenn du ci tey dañuy am ni ne yaa de commerce def ci confection dem jël marché bi dañu ko sous-traité loolu nag geex na fi tey ñun yeewu nañu nous sommes formalisés pour li ñu moom ñu jëli ko loolu nag lu mu jaral ab syndicat bu nekk pour mu taxaw ci plateau télévision défendre ñoom seeni intérêt ñun dinañ taxaw défendre suñu intérêt ba président Macky Sall bàyyi projet bii mu dem mu dem ndax ndax benn dog laa ciy def benn benedi benedi benedi benedi yeewu laa ci joxe dama toog léegi ci jataay bi ci jataay bi damaa toog léegi jataay bi mu daw yaram benn ci sunu mbokk tailleur artisan daw ba agsi ci ñun ak mbégte ne ma jënd naa terrain démb xaw ma bërki démb sotti naa fa suuf tey jënd naa ciment te bu subaa mu tàmbalee tabax te mi ngi jataay bi te deux ans wala trois ans ci ginnaaw mënu ko woon kon nag projet bi lu mu jaral ñi nga xam ne ñoo fi daan nekk di ko jël ñun dinañu ko jaral pour ñu défendre ko ba mu mën a dem incha allahu rabbi li nga xam ne moo nekk ci yoon bi parce que ñi fi toog ñëpp quatre-vingt-dix pour cent ci paiement jot nañu seen reliquat dix pour cent ci ñi fi teew moo xam ñi fi ne am na ñu fi toog te jotaguñu waaye seen ngoor dafa wane ni mi ngi en cours ndax fii ñuy wax ak yéen jàpp nañ ni bu buñ jógee ci point de presse bi 10 pour cent yooyu nga xam ne jotaguñu seen reliquat bu ñu déggee suñu message bii suñu demee ci banque yi danañ fa fekk seen xaalis ndax mi ngi en cours kon loolu moo tax ñu ne nañ fi teew pour wax suñu mbégte ñaaxaat état bi mu jël ay matukaayam te lii nga xam ne def na ko ci suñu secteur bi ñu ñaan yàlla mu def ko ci suñu mbooleem secteur artisan yi fi ne ndax ñëpp ko soxla moo xam corps de métier bu nekk ci ci réew mi mën naa am lu mel nii su su ko defee rek yàlla mën nañoo dimbali chômage dootu fi am agression dootu fi am te daw mi dina naataange kenn du tala génn ci mbedd mi kenn du tala def leneen lu dul toog sa atelier di ñaw di liggéey ngir dimbali sa njaboot. loolu vraiment ñi ngi koy wax di sant l'ensemble ñi nga xam ne ñoo fi nekk ak ñi fi teew ñëpp di wax ne nit ñi yeewu nañu ndax am na ñu bari ñu bëgg ci marché bi fii may wax ak yow bi ñu jëlee marché bi ak cent 104 chef d'entreprise. defal naa leen NINEA ak réseau cent 104 yoo xam ne yii ku ci nekk mën naa wax sa tur wax la sa sant wax la fa dëkk wax la fa mu ne muy loo xam ne lii dañ koo archivé mu nekk loo xam ne lii su ma ko waxee am na ñu fi nekk ñu ko am am nañu tey dey fii may wax ak yow ñu fi déposé pour mën a am loolu formalisation yooyu pour mën a am ci marché bi kon loolu nag defe naa ni tey yëpp yeewu nañu te loolu defe naa ni moom la moo ñu fi taxoon a daje di ñaan yàlla lii nga xam ne moo fi ñëw ñu ci jot ñëpp yàlla na doon seen wërsëg ñi ci jotagul yàlla nañ ci jot waaye daal ñuy wax ni marché bi daal moom incha allahu rabbi lu ñu jaral pour trois ans yi mat ba bañ yokk sax quatre ans wala cinq ans wala dix ans wala à vie dinañ ko def incha allahu rabbi ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen